Nek actuel candidat bi nga xamne day jongante ngir dal di jël raw gaddu gi ci élection présidentielle 2024 ñu organiser fofé ci Amérique. lu yees ci mbir momé mom moy kané ñu upp ci nga xamne dañuy and ak di Donald Trump dañu wax kané kiñ dippé Thomas Matthew Cruz té muy ku tiire di Donald Trump ñom né li ni mel bu anto service de défense et de sécurité yu nek bir Amérique sàmmuñu won bu baax kookee di Donald Trump te loola moom moo sabab kookee ñu dippee Thomas Matthew Crook daal di mën a tiire kookee di Donald Trump ñoom ne lu sabab lu tax ñu wax li ni mel moom mooy que ne avant meeting boobee nga xam ne ne ki ñu dippee Donald Trump da ko doon amal fi ñu dippee Pennsylvanie di commencé daa amoon ay partisans wu Donald Trump yu gisoon ki ñu dippee Thomas Matthew Crook daal di yéeg ci benn kaw toitiri kër daal di fay tëdd ngir mën a natt kookee di Donald Trump ginnaaw bu ko partisan wu Donald Trump gisee nag. dañoo alerté woon force de défense et de sécurité yi nga xam ne ne ñoom ñoo defoon foofee ngir daal di veiller ci sécurité wu kookee di Donald Trump waaye partisan wu Donald Trump yi ne loolee sababul woon force de défense et de sécurité yi nga xam ne ne ñoom ñoo waroon a sàmm sécurité kookee di Donald Trump daal di arrêté ki ñu dippee Thomas Matthew Crooks dini mel nag moom moo sabab partisan wu kookee di Donald Trump ne force de défense et de sécurité yu nekk Amérique ñooñee dañoo am benn rôle bi nga xam ne ne joué nañ ko si liñ doon jéem a ki ñu dippee Donald Trump. ginnaaw li ni mel journaliste biñ dippee Babacar Touré yëkkati ne ay kàddu daal di koy jëmale si lu sabab dëggantaan kookee di Bougane Gueye dani laaleetul ak kii di président Ousmane Sonko. si li ni mel kii di Babacar Touré ne ci ndaje bi nga xam ne ne foofee la kiñ ñu dippee Bougane Gueye Dany daal di yàqoo kii di président Ousmane Sonko. moom ci wàllu boppam moom moo ko organisé woon ci Ziguinchor ci kër homme d'affaires biñ dippee Pierre Atepa Goudiaby ne lu sabab nag kookee di Bougane Gueye dani ak premier ministre bii di Ousmane Sonko bokkatuñ jaaru moom mooy que ne kii di Bougane Gueye dani paaru gatoom bi la doon laaj ci ànd ak kookee di président Ousmane Sonko maanaam sàkkuteefu kookee di Bougane Gueye dani mooy bis bu kookee di président Ousmane Sonko yore akub nombal tànk maanaam président de la république ci réew mi di Sénégal mu daal di koy sédd akub nombal tànk bu kawe boo xam ne ne dañ koy wax au préalable avant kooku di président Ousmane Sonko di nekk président de la république ci réew mii di Sénégal mais si li ni mel nag kooku di président Ousmane Sonko da cee bañoon ba daal di tëdd ci suuf ne loolee moom moo sabab kooku di Bougane Gueye Dany daal di jàppal benn en bi kii président Ousmane Sonko bu kenn daanu ci pièce bi nga xam ne ne kookee di Bougane Gueye Dany moo ngi koy tendre sénégal yi ndax ne kookee di président Bassirou Diomaye Faye ginnaaw ba mu fi amee trois mois presse nationale bi la daal di oo li ni mel nekk gulet mu daal di toog waxtaan ak ñooñee lu tolloog deux de temps ci benn sujet bu amul tàbbu mais kon si li ni mel Sénégalais yëpp ñoo ci waroon a tàccu daal di xam que ne rupture am na ci réew mii di Sénégal waaye ne kookee di Bougane Gueye Dany mi nga xam ne ne ci monde imaginaire am def na boppam président ndax ne ko ki di bugan ki dani lu am xaalis taxna fum rombo ay 4-4 ak 8-8 dal di koy dar yem ci escorte tam mu fokk ne sénégalais ñom ñokay taccu ne ko ke nga xam ne amul sax poste chef de quartier ci mim rew bu démé nak ba dal di détourner sénégalais ci essentiel bi té mom moy déglu ko ke di président Bassirou Diomaye fay ba nopi di déglu ko ke di bugan gay dani kon ne ko ke di bugan gay dani mo ngi commencer di piéger sénégalais ginaaw li ni mel kiñ dippé Lat Diop nekkon fi désir bu honnête nekk fi ancien ministre des sports kookee tuddaat nañ ko ci beneen coowalu milliard coow loolee nu mu demee moom mooy que ne kiñ dippee Ibrahima Dieng nekk njiitalu club biñ dippee Guédiawaye FC kookee moom moo génn daal di xamal Sénégalais yi que ne kiñ dippee Lat Diop da ko oolu woon ba mu ñëw këram kookee bu ko dénk lu tolloog un milliard de francs CFA xaalis liquide ngir mu daal di koy jël moom ci wàllu boppam daal di koy yóbbu këram kii di Ibrahima Dieng daal di woyal ne kookee di Lat Diop ginnaaw ba mu bëggee yëkkati xaalis boobee nag daal di ko koy jébbal daa bañoon bañ a jël xaalis boobee yóbbu ko këram ginnaaw ba kookee di Ibrahima Dieng fësalee kàddu yooyee nag sàkkuteefu sénégalais yi moom mooy procureur de la république bu nekk ci réewu senegal te muy Abdou Karim na kookee daal di auto-saisiru ngir daal di leeral mbir moomee ndax lu tollook un xaalis liquide yoonu réewu Sénégal day aaye nit daal di koy yore ci këram waaye tamit un milliard de francs CFA ku ko yor sa kër loolee day tekki que ne soit da ko koo sàcc wala nga nekk ci ay activités yi nga xam ne ne yoon da koy tere donc saaku teefu sénégalais yi moom mooy procureur bi ñu dippee Abdou Karim Diop kookee daal di autosaisiru ñu daal di leerlu jëmale ko ci un milliard de francs CFA yi nga xam ne ne dañoo wax que ne moo ngi ci kër ki ñu dippee Lat Diop di ancien ministre des sports bi nga xam ne ne kookee ci ministère yum jaar yëpp dañaa dégg foofee ay scandale donc scandale yooyee nga xam ne Sénégalais dañ ko doon jortu buñ demee ba déggaat kookee ne dafa yor lu tolloog un milliard ci këram lu war procureur de la république moom mooy mu autosaisiru daal di leeral Sénégalais yi un milliard yooye fan la war a bàyyeekoo kookee di Lat Diop mooy kan ba war a téye lu un milliard de francs CFA xaalis liquide ci réew mii di Sénégal. ginnaaw li ni mel journaliste biñ dippee Ayoba nekk biir Walfadjri yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale si lu sabab kiñ dippee Abdoul Mbow te mu bokk ci parti biñ dippee APR kookee gën a daal di fës si li muy yëkkati ay kàddu di ko jokkalante jëmale ko ak gouvernement bu bees bi ci réew mii di Sénégal si li kii di Ayoba ne. Wa parti bide di APR donte ñoo ngi opposé wu waaye ne ku ci gën a actuellement ci réew mi di Sénégal du kenn ku dut Abdoul Mbow te ne lu sabab kookee di Abdoul Mbow gën cee rëy làmmiñ dëkk di Mbow moom mooy ne kookee di Abdoul Mbow ci poste yum nekkoon amul benn poste bi nga xam ne ne foofee na fa daal di jaaree daal di sàcc xaalisu sénégalais yi ne kookee akub député la doon nekkoon biir assemblée nationale donc ne kookee di Abdoul mbaw li coow di bëri bëri ci waa biir parti boobee di APR moom daa xam que ne kenn épinglé wu ko ci benn rapport ne set boobee nag mu daal di set moom moo sabab kookee lu mënti am ci gouvernement bu bees bi mu yëkkati ay kàddu di ci yuuxu di ci mbow bañ cee noppi ne li ni mel nag moom moo sabab kookee di Abdoul mbaw manqué d'objectivité maanaam day ŋàññ rek pour ŋàññ waaye du la wax mukk li nga xam ne ne dina daal di nekk lu raisonnable waaye nag ne lu sabab kookee di ŋàññi rek ba a noppi moom mooy que ne daa xam que ne benn rapport ci réew mi di Sénégal indexé wu ko donte bokkoon na ci gouvernement kookee di président Macky Sall avantage boobee la daal di am. lii lañ leen indiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah.